seen tur ak seen sant di leen dalal ak jàmm programme yàlla nag programme yàlla la parce que si programme bi mu tënkoon suñu papa Ousmane moo war a njëkk a wax fa oustaz Ndaw ñëw leen na suñu papa Ousmane njëkk wax loolu programme yàlla la suñu papa Ousmane mu doon wax sànq moom moo fi teewal suñu papa Ibrahima nu ko waxee moom mooy xalifatu njóobu fii nii kàddu yu yëkkati nag rafet na lool ñu ngi ko siy gëm bu baax sas nañu ñaax nañu su ko defee nag nga tey waxtu bi daf ñu wax wala dab dañuy pare ak suñu papa Ousmane daal di jox turandoo moom tamit maam Ousmane moom ay kàddu yu si sànni avant ñuy continuer si waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullah. saadaati fiikum bidaati saadaati fiikum bidaati alhamdulillah yëpp di ziar di ndokkeel di tatagal ñu ñëw ci guddi gi je pense c'est la deuxième fois ngeen may jox kàddu waaye destu ahla bu man moom moom kàddu gi dañuy wax tuuti ci li ñu fi indi tey comme ni ko suñu papa oustaz la waxee yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man bi ñuy tàmbali di jàng burdu maa ngi dégg ay salawaat yoo xam ne def nañ ko ci biir burdu bi waaye damay jékki-jékki bëgg a tukki ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa mel ni Cheikh nag si jàng daf may hijab mooy damay bëgg a xuus Cheikh Cheikh taxaw شو النتيجة نتاعها؟ مطرح كان نون كان كان نون الوخ شو يوم تجي؟ تو تو جارت خليفة بي الشيخ النتيجة؟ عندهم بي دي كوريا ليوب دي بومبي شيلير يوم تجي موم دفع من كوجاك من بعد إذا مشربون للشيخ من كتيمون كل مسلم وأملاك السماوات

waaw waaw waaw waaw bu ko déggoon tuuti mën na am dinañ am tàngaayu dënn boo xam ne lépp dana sotti ndax jafe yi dënn yi ñoo ñoo ñoo xaw wow te dënn yi li koy yëngal euh, dafa bokk ci ñu mel ni Cheikh la Tijaan moom mooy seen raïs mooy raïs moom mooy seen mooy seen mooy seen buur buur yi nga xam ne boo leen tuddee sa dënn yëngatu Cheikh Tijaan mooy seen waaw ma delluwaat ci xalifa yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam te man dus naa wax ci teg tànk ci pays yonent bi te teguma tànk ci pays Cheikh bi du du du affaire de gore wala ñàkk gore caabi la caabi mooy caabi mooy caabi yaa ngi dégg ala kulli xaalis dañ doon woote rek ci ci texe bu mag bi texe bu mag bi muy sëñ na cheikh moom yóbbu ñu ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bon bu ñu bëggee wax ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dina am ay maratib yoo xam ne mënuñ ko jukki wax wax ci moom loo xam ne la saaxi mu ne Seydina Cheikh géej la boo xam ne amut muslimit amul tefes amul tefes bàyyi sax day woy sëñ na Cheikh naan ko dem nga ba yonent yi taxaw yow nga xuus baxru boo xam ne maktumiya la suñ ko defee suñu continuer bi dañuy dañuy delluwaat si laylatul katmiya est-ce que xam ngeen lu tax jëf gàmmu bi di am ban weer lañ mujj rabiul awwal lan moo ko lan moo ko jiitu safara lu fa am waaw nga gis ne mooy mooy mooy mooy xaadimu rasul dëgg sëb na cheikh mooy xaadimu rasul dëgg ndax bi ñuy war a indi weeru yonent bi weeru cheikh moo ko jiitu nettoyé kawlu bi nettoyé àddina bi ñu màggal ko ci laylatul qadr nga gis ne ah waaw kay balaa film bi di ñëw lancement bi nga gis ne sëb na cheikh من لما بقول لو تي انا تبي يفسد الشيخ ده في مي حجاب مي حجاب العظم تي انا تبي انا تبي مي حجاب العظم بو يالله مي سيدنا الشيخ مي حجاب العظم بو بو انا تبي ني نياغي بوغ فجر جوت ولا وقت جولي جوت اكا باخ ما نجا جان القران واي القران موي لا alxuraan mooy la boo jëlee benn saar bu ndaw inna a'taynaaka al-kawsar jëlal saar boobu est-ce que xam ngeen lu tax luy asbaabu nuzul bi li tax saar boobu wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am doom bu tudd Abdullahi léegi-léegi ñu koy woowee Tayyib léegi-léegi ñu koy woowee Taaxe ñu géejuwul ci siira dañuy naan ñaari doom yi bokkul la waaye Abdullahi mooy tay mooy taaxir Abdullahi boobu moo génn àddina yonent bi doomam yi góor yi macha allah dañuy gaaw a génn àddina bi Abdullahi génnee àddina ñoom Abu Jahl ak bandi Màkka yooyu di ñaawal yonent bi hmm. mu def ko mu def ko tiis dem ba nga xam dañ ko naan yow doom bëggoon boo am rek mbaa boo am rek mu rëcc sa loxo hmm. mu tiis ci moom loolu bu mu tiisee nag yàlla ne ko jox naa la kawsar hmm. te loolu dafa tombé loon ak bésu iid hmm. salli li rabbika loolu daf ko ne bi ma la joxee kawsar moo tax fii Sénégal nit ku dee dañuy jaxal ngeen baal ma ci wax ji léegi dañuy yëg niveau bi saa ça ñu mën wax ci luy jëriñ Sénégal ku dee dañuy jaxal waaye yonent bi bi Abdoulaye génne àddina yàlla daf ko jaxale Kawsar xam nga loolu bokkul yow dix mille ngay joxe wala cent mille wala lii yonent bi Abdoulaye génne àddina daf ko jox Kawsar ne ko jaxal naa la xam nga loolu dafa doy waar moo tax siira bi duñ ko duñu ñëw ñëw rek di ko def ñuy dem suñu yoon dafa am ay ay ruq-ruqaat yoo xam ne njëriñ la bu dul jeex bu ma jàdd soo leen ma mayee ma jàddaal tuuti ci kaw sara boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rañaanam rañaanam bu kawe boobu dafa dem ba benn ci maraati parce que dama bëgg jox sama papa yi ñoo xam ne ñoom ci seen leer laay tëddee mais im naa naa bi sax ci ñoom ñu dem ci kaw sar tout seul mu lem meew ndox ak sangar waaye lazatan li sharab boobu dafa neex sangar boobu lazatan li sharab doo ko naan baax alhamdulilah mais boo mosee bu fii attention da ngay tànn benn rek. dëgg la waaw doo mos a yëngu fii doo mos a yëngu bon ma ñëwaat ci waxtaan bu sérieux waaw waxtaan bu sérieux gàmmu bu sérieux bañ koo ji ñeenti dex yooyu jibril yonent bi dafa taxaw ak jibril mu ne jibril ñeenti dex yi fu mu jógee ak fu mu jëm jibril ne ko xam naa fu mu jëm mais xaw ma fu mu jëm jibril ne ko ñu ngi dem tazhar ilal kawsar ñu ngi dem kawsara la ñuy dem daanu waaye xaw ma fu ñu jóge waaye Jibril ne ko sa borom dina la wax fu mu jóge dina isin bi yonent bi defee loolu liñ laajee borom am malaaka bu teer ne ko lu ngeen soxla si mu ne ko dañu bëgg xam ñetti dex yi fu mu jógee mu ne ko gëmmal say bët gëmmal say bët déglu bu baax sew sewu gàmm gëmmal say bët ma wax ci Kawsara Baye Niass nee na Kawsara nee na Kawsara boo fàttee sa ñaari nopp da nga koy dégg. Hmm. waaw mu ngi ci mu ngi ci tafsir bi soo tapee YouTube di nga ko fa dégg Baye Niass moo ne Kawsara soo fàttee sa ñaari nopp da nga koy dégg. da ngay dégg sax si tafsir mu ne fàttal sa nopp boo ko fàttee rek dégg ko. ah bon ma ne ñaari nopp bi boo ko fàttee dégg Kawsara xam nga insaan nit ki mooy aalamul akbar <laughs> nit ki mooy aalam bu mag aalam bi li la wër bu ndaw la. nit yi mooy alamul akbar ne ko soo fekkee sa nopp dégg kaw sara boo gëmmee mu ne malaaka malaaka bi ne yonent bi gëmmal yonent bi ne bi mu gëmmee rek dañoo nekk ci benn benn garab garab googu nekk ci ginnaawam xubba xubba mooy tànt yi rek mais dafa am ñeenti poto nee na bi ne ma gis ñeenti dex yi ma doon gis laaj ma Jibril ma gis dex yooyu di ball ci photo yooyu Jibril ne yonent bi doo xuus tuuti ba xam dëgg-dëgg ci biir xubba bi lan moo ci nekk yonent bi ne ko ah xubba bi dama gis ni tëj ko caabi te mënuma ko ubbi mu ne ko wa indaka mu ne ko yow yaa yor caabi bi te mujarrad la yonent bi pay wa mujarrad la àndul dara yorul poche yorul kii yonent bi leneen Jibril ne ko yow yaa yor caabi mu ne mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne waxal bismillahi rahmaani rahim mu ne bismillahi rahmaani rahim xubba bi caabi daal di ubbeeku mu dugg yonent bi ne bi ma duggee ci biir xubba bi damaa gis ne mii mu kii bismi mii mu bismi ak xaawu allahu ak mii mu rahmaan ak mii mu mii mu rahim ñeent yooyu da lay jóge ñeent dex yooyu kon boo leen déggee kawsar cosaanu Kawsara bisimilahi rahmaani rahim léegi yow ngay chaque jour ngay wax bisimilahi rahmaani rahim nangam nangam xam nga da nga dégg moo tax te mënu ma dégg ko ne xaafis da te bëggul yonent bi mënul nekk ndax wax naa la asbaabu nuzul bi nga xam ne moo nekk ci innaa a'taynaaka al-kawsar léegi yow ngay jàng innaa a'taynaaka te xamoon tuuti ñu wàccee ko yàq rek ngay tax. maa ngi bëgg a nelawal nit ñi damay delloo kàddu gi xam ne nag ay funkal ñoo toog nii ay funkal ñoo toog nii ndax man seen fan rek laa daan toog nii ma xaw a xor dara tuuti waaye amaguma dara yaa ngi dégg waaw maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla alhamdulillah Mansour maa ngi leen delloo sa programme di wax nit ñi ne leen kontaan nañ ci seen teewaay euh, nii la يمكن مريت انا لوكلي تي وما رات البحر عقر من اجبا كوي نيو في دنيا واخول بسال دي كو ديس ان شاء الله ما كو واخ كوي نيو في اخول بسال دي لو ديس لي ماري واخ ان شاء الله ربي تي ما سو ورني مو الاكسي بروغرام كاموش مو ام آه، ان اسبي سوسيال ان اسبي سوسيال سا دي كو نيت كو في نيو خامني غامو لا سي سوبسي بو بغي فاجو كونسلتاسيون مان كو كونسلتي amuñu dara de mais mën ngeen trouver des moyens de telle sorte que nit ku am ordonnance atum lëmm ci mënu ko jënd ba si yonent bi bu ñëwee fii nii ñu xool ni ñu mën a jokkalee ak état bi ak li ci des ba ñu mën fay ordonnation yooyu ngir lan ngir jëndi yonent bi sallallahu alayhi donc cette dimension boobu ngeen war a yokk te incha allah dinañ ci gunge bu baax loolu mooy kalima bi bëgguma guddal maa ngi leen di gërëm bu baax yéen suma mbokk zakir yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu wa ma zalika lillahi bi aziz salaamaaleykum wa rahmatullahi taala